ku bon nga ku ñàkk yar nga ku ñàkk teggin nga ndax Saakura yow ni ma la bëgg ni ma la bëgg a joxee sama doom wala tund wii wépp village wii ñu ne wépp kenn du la joxee noonu doomam te yéen ma ne gu ma am ci yow a tax ne la dee ko bëccëg sama doom da da tisi wala mu mu mu mu ab moo xam ne dama naan la dee ko bëccëg te dama la koo ba cëgal. sama doole tool noonu. tey sa làmmiñ ba ma ba ma ba pare. ngay guddal loos mel ni mel ni mel ni jaani ñàngoor déglu li ma la man seen doxaanante génération yii xew léegi ñun xamuñu boobu façon doxaanante booy doxaanante da ngay ñëw ma génn toog ci digg ëtt bi ma di jàkkaarloog yéen ngeen di wax li ngeen di wax ma di ko dégg nga jël sama doom bëgg koo dégg maam. yóbbu ci taati tóokóor yeeg taati ñax yi a ah am noo fa def ak moom naan ma doxantoog ma kii ay appeli téléphone di di tax na ngay ngay ñëw di attaqué sama doom ci noonu eh? et yow mat leegoo yaa ngi bëccëg mat leegoo bëgg maa bëgg maa sonal ci coow defoon naa boo duggee sama tóokóor wi di ma wax danga may wax waxu responsable waxu fulaak fayda ma sama xel mën a dal waaye li ngay wax ni ay waxu kuy lal ay ay dëgg sërëx caga nga ah? aha kay da ngaa bëgg a utiliser sama doom an kay parce que ah. li ngeen xewal léegi mooy damay ñam balaa maa takk bu safee ma ak accéléré bu saful ma delloo sans temps léegi sax comme yow sax yow yàlla sax moo dimbali indil ma la yow li la wax loolu yi xamoo ko la yàlla def na ni man lekkuma ko. ma ma ma ma delloo loolo lan mat leegoo. <laughs> loolu kay moom lool kay moom wër di fene moom gënal moom. Baye Baye Abdou Baye Abdou Baye Abdou gis nga xalaat bu rafet daa baax. Hmm. man fi mu toll nii loolu boo ko defee mooy sama àdduna tukki na.